بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko samedi passé ñoo ngi waroon jël juróom ñetti aaya ci suratul araf waaye sunu borom subhanahu wa taala dimbali woon nañu ba ñu jël ci yooyu nu limoon ñetti aaya tey ñu war ko yeggali ñu war a jëlaat aaya 13 14 15 16 17 18 mu nekk aaya yoo xam ne waxoon nañ samedi bi passé lan la ci sunu borom subhanahu wa taala doon jàngal kon introduction bi defoon nañ ko samedi dañ ko daggoon ndax waxtu wi ndax xam ngeen sunu mbokk bi dafa war a def léegi chaque jour bu ñu paree rek mu daan ñu defal dars ci fiq loolu moo tax ñuy dagg aaya yi ndax di ko may di ko ci xajal ci waxtu wi ndax mbokk yi mënu ko jëriñoo incha allah bismillah du ma guddal dama bàyyi cheikh bi mu jàngal ñu aaya yooyu aaya 13 14 15 16 17 18 mooy qaala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha right
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين barakallahu fiik jazakallahu xayran wa kassara amsaalek mbokk yi aya yaa ngoog sunu borom subhanahu wa taala xam ngeen ne waxoon na iblis ginnaaw ba ko sunu borom sante mu rëy rëylu waxoon nañ bàkkaar yi gën a mag ci kaw suuf mooy atakabbur mooy rëy waxoon nañ li koy jur lii jur rëy mooy reew mooy réer nit saa yu réeree day rëy su réyee lan la koy jur mooy day reew moo tax réer baaxul saa yoo réeree rëy ngay rëy la lay jural iblis buur bu tol na yàlla ne ko sujootal mu bañ suñ borom subhanahu wa taala ne ko bis ni ki tey di nga bokk ci ñoo xam ne tuutil naa leen qaala fahbit minha yàlla wàcce ko génne ko biir aljanna daal di koy dégraté moo tax sunu borom subhanahu wa taala ñun ñëpp ci xissa iblis bi war nañ cee jàng ne doomu aadama mbindeef rëyul ci kaw na mu yàlla noo toll daraja daraja boo moyee yàlla yàlla dégraté na la tuuti nga ak noo toll nag ak ndomba tànk boo mën a takk bis bu la yàlla santee nga lànk sunu borom subhanahu wa taala wàcce na la ak koo mën a nekk loolu da ngeen koy jàng ci xissa aadama jàng ci ko ci xissa iblis jàng ko ci xissa yu nekk ci ay mbindeef yoo xam ne garaade ya ñu takkoon ba ñu moyee yàlla yàlla da leen a dégrade sunu borom subhanahu wa taala ne ko fama yakunu laka an tatakabbara fiha amoo benn droit amoo benn kattan ngay ngand ngandulu waaw moo tax ku yàlla sant nga bañ rek yow dugg nga ci mbirum iblis parce que da ngaa rëy moo tax rëy baaxul rëy mbalaanum yàlla la ku ko xëccoog yàlla rek yaay ay chané rek ki alku mooy ki xëccoog yàlla mbalaanam sunu borom subhanahu wa taala daal di koy génne ne ko faxruj innaka min as-sagirin génnal biir aljanna bis ni ki tey su fekkee da ngaa takkoon ay ndomba tànk takk ay garaat ba ànd ak malaaka yi tey jii da nga tuuti tuuti nga kenn du rëy ci kanamu yàlla mbokk yi ñun nag bu yaakaar bu ñu yaakaaree ne am nañ fi ay mbindeef am nañ fi ay kilifa am nañ fi am nañ fi ba ñooñu dañuy jéem a jël place yàlla dañuy nax suñu bopp de yàlla kenn du rëy ci moom amul amul amul amul amul mbindeef moo xam ne mën ngaa rëy ci kanamu yàlla wala nga màgg ci kanamam abadan loolu tax rëy ab julit war naa xeex ak boppam ba mu génn ci moom sunu borom subhanahu wa taala qaala mu ne ko iblis ne anzirni ila yawmi yubaasuun yàlla nag ma may ma bañ a dee ba bis ba ñuy dekki iblis ba muy wax loolu yàlla yàlla subhanahu wa taala moo ko moom moo ko bind moo ko sàkk xam na lan mooy programme u iblis yàlla yàlla nag ma may ma bañ a faatu ba bis ba nit ñi di dékki qaala innaka min al munzarin yàlla ne ko may naa la ko dafa mel ne dafa am lu mën a bon bi ko yàlla nee may naa la nga bañ a dee ba bis bi nit ñi di dekki rek mu génn la mën a bon wala bari na ci doomu aadama yi yu nëbb ay mbir soo leen maye dara rek ñu exploité la ñu na bon loolu dafa bëri qaala fa bima axwaytani la aqudanna lahum sirataka almustaqim giñ naa yow sama boroom ci kattan gi ma may mooy dooma rey ba bis ba ñuy dekki ci bewloo googu nga ma bewloo xaar googu nga ma xaar may googu nga ma may danaa toog laam bi laamul qasama la aqudanna laam bi laamul qasam la nuun bi nuunu tawkiid daf ko dëgër waaj giñ naa ci sa màggaay yow yàlla danaa frenkulaayu la aqudanna toog boobu mooy lan mooy danaa ne korof toog frenkulaayu ba ni këcc ci yoon bu jub bi tey yoon bi nga bëgg gaa yi jaar siraatal mustaqim ba nga xam ne chaque jour ñoo ngi ñaan ihdina siraatal mustaqim julli suba ñu ngi koy jàng ñaata yoon ah ñaari yoon julli tisbaar takusaan timis gee kon loolu la loolu la ñu bëgg jaar ci siraatal mustaqim yonent bi ne yoon woow mooy sama yoon wa anna hada siraati mustaqiman fattabi'uhu wala tuttabi wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an yoon woowu muy yoonu yonent yàlla muhammad yonent bi wax ko te jullit yi bëgg faa jaar ci yoon boobu laay toog la ko la aqudanna lahum sirataka almustaqim danaa toog ci yoon boobu su ma fa toogee lan mooy sama mission mooy kenn du ci jaar loo tax tey war nañu bu ñu gisee mbir yi bu ñu gisee dëkk bi gis jamono bi gis war nañu xam ne programme iblis la iblis moo ne kenn du jaar ci siraatal mustaqim danaa fa toog moo tax ñu bëri iblis di leen dévier ci ay kilifaak waxuma la xale yu ndaw ndawaan yi cumbur cumbur yi waaye ponkal yi iblis di gërëm di daaneel ci suuf parce que yàlla iblis nee na duñ fi toog du ci yem waaye mu ne summa la aatiyannahum min bayni aydihim wa min xalfihim wa an aymanihim wa an shamailihim su ma fa toogee du ma fa yem de danaa leen jóge min bayni aydihim danaa leen jóge seen kanam danaa ñëw ci kanam wa min xalfihim danaa ñëw ci ginnaaw wa an aymanihim danaa ñëw ndeyjoor wa an samailihim danaa leen jóge càmmoñ fan la iblis bàyyi côté yëpp iblis nee na dinaa leen fa dikkee danaa ñëw ci kanam jàpp ay nit ñëw ci ginnaaw jàpp ay nit ñëw ndeyjoor jàpp ay nit ñëw càmmoñ jàpp ay nit kon fan la bàyyi yow nag boo amee ab noon mu wax la dinaa la wër fépp foo dugg dinaa fa dugg dinaa la loqarti te noon boobu moo la mën moo la ëpp doole yow ngay dégg loolu noo war a def bàyyi xel sa bopp mais maa alsaf tey iblis jàpp nanu jàpp na ñi ci kanam jàpp ñi ginnaaw jàpp ñi ndeyjoor ñi mu jàpp leen ci càmmoñ parce que li mu wax daf koy def yemu foofu mu ne yàlla subhanahu wa taala wala tajidu aktharahum shakirin ñu ëpp ci ñoom doo fekk ñu lay sant lan la ci lan la ci jublu mooy doo fekk ñu lay jaamu ndax ku santul yàlla rek bàyyi nga jaamu gi ndax jaamu yàlla gi mooy nga xam nga am nga buur bu la bind am nga buur bu la moom am nga buur bu la sàkk mu sant la nga taxaw ci jaamu ji loolu mooy sant yàlla asukuru tarkul maas jaamu yàlla bi gën a rëy mooy sant xoola iblis nee na yàlla dinaa fexe ba gars yi duñ la sant wax na dëgg de def na ko de tey ci Sénégal di ngeen dégg dañuy di ngeen gis ay baas yu nganda ngand ay lal kan la ñuy sant man de gisaguma baas Sénégal ma ne lu xew fi ñu ne yàlla la ñuy sant man gisaguma ko yéen nag mas ngeen gis romb baas nit ñi bëri ngeen ne lu xew fi ñu ne dañuy sant yàlla dañuy sant Moussa dañuy sant Paate dañuy sant Demba dañuy sant Modou kese yàlla nag ah lan la lan la kooku def bañ koy sant kooku ñuy sant lu mu def bëri na ku ñëw fii dañ koy sant léegi lañ laaj lan la def moo bind asamaan laaj la dama leen di laaj ma ne kooko bind asamaan moo bind suuf moo moom ngelaw li moo moom géej gi moo moom moo moom moo lan la moom lu mu def kon lan lañ koy sante ñu bàyyi ki ñu waroon sant ñu sant keneen moo tax yonent bi mu ne ana wal ins wal jinn fii naba'in azim man yàlla hadis qudsi la man yàlla ak ginne yeeg nit ñi ñu ngi ci xabaar bu rëy yowmal xiyaam ñu ngi ci mbir mu rëy yonent bi ne yàlla lool lan la mu ne ko axluqu wa yubadu xayri man yàlla maa bind ñu jaamu keneen wa arzuqu man yàlla maay wërsëgalaate wa yuskaru siwaaya ñu dem sant keneen allahu akbar nga gis waa ji yàlla wërsëgal ko mu kër këri kër këri ba am liggéey première salaire mu dem jox ko sëñ bi mu ne jërëjëf sëñ bi mu bàyyi yàlla allahu akbar ñenn ñi ñu ne liggéeyu ndeyam la yaayam a ko liggéey ci kër gi ana yàlla ñenn ñi ñu ne wu gàllaaj gi la fañ ko yóbbu wu bi ko paa bi bindalee won ku dool makko memata leydi koko koko halimam dulal suuf kanko so windanima sa lootima ndeysan loolu la ñuy maye koko bula bindalee cey boo ko sange wala boo ko takkee sa affaire baax na ana yàlla ayna allah xoola yàlla fi mu tàmbaleeg waa ji ah xoola bët bi la yàlla may bët yi rek bët kan moo ci mën a sant yàlla bët allahu akbar xoolal nopp yi li muy dégg kan moo ci sant yàlla xoolal bakkan bi li muy noyyi xoolal ngelaw li oxygène bi ni mu neexee ngay xëcc muy ñëw amoo problème ngay génn muy delloo dara amul problème waaye ndeysaan yàlla waxoon na ko wa qalilun min ibadi ñëw na ci jaam ñi ku may sant li ñuy sant nit ñi moo ëpp téeméeri yoon ñi sant yàlla li ñuy sant nit ñi moo ëpp milliards yoon li ñuy sant suñu borom subhanahu wa taala moo tax jaamu yàlla bi gën a rëy mooy sant nga yëg yàlla tabaraka wa taala nga sant ko ibrahim ah Moussa waxoon na yàlla damaa bëgg nga jàngal ma loo xam ne loo rek laa lay sante yàlla mu ne ko léegi nga may doog a sant ñun ñëpp dañoo jaamu yàlla boobu ñun ñëpp dañ cee gàttañ lu mooy sant yàlla ñun ñëpp ci gàttañ lu ñun ñëpp ñoo gàtt nañ lu ci sant te iblis loolu la wax yàlla fala tajidu aktharahum shakirin ñu ëpp ci nit ñi duñu sant yàlla ay baay la ñuy sant ay maam la ñuy sant ay sëriñ la ñuy sant ay ay ay ay ay ay ay la ñuy sant duñu sant yàlla lu tax te ñooñu ñuy sant yëpp dara lañ deful ci mbir mi dara ndax yàlla tabaraka wa taala bi mu la bindee bokk na ci yonte bi la doon jàngal abdullahi ibnu abbas waxoon na ko umma bi yëpp bu ñu àndee bëgg laa xañ dara kenn mënula koo xañ buñ la ko bëggee jox te yàlla joxula ko munoo koo am abdullahi ibnu abbas munoo koo am mu ne ko xat jaffati suhuf wa rufi atil xalam yëkkati nañ xalima gi këyit gi fendi na loolu yàlla bind na ko ba pare lii nga am loolu nga waroon am lii nga ñàkk moom nga waroon ñàkk kon boo amee xamal yàlla la soo pertee xamal yàlla la kon sooy sant kan nga war a sant yàlla kon iblis la mu wax moom daf koy def danaa ñëw ndeyjoor danaa ñëw kanam danaa ñëw càmmoñ danaa ñëw ci ginnaaw danaa ñëw fépp fenn dong la iblis bàyyi mooy kaw ci kaw dong la iblis bàyyi lu tax mu bàyyi ci kaw parce que diggante yàlla doomu aadama bi waxuñu la nga dem ci kanam waxuñu la nga dem ci ginnaaw waxuñu la nga ndey ndeyjoor waxuñu la nga dem càmmoñ fan lañ la wax nga yëg da nga war a yëg foo yëgee foo jëm ca yàlla sooy dem ci yàlla fooy jaar ci kaw loolu moo tax iblis diggante yàlla ak jaam ñi iblis mënu ko fat loolu tax kenn warul fexe sa digganteeg sa borom dara nekk fii yàlla ci kaw la nekk moo tax diggante yàlla ak ñun iblis mënu fee nekk wala yàlla nekku ci kaw arrahmanu alal arshi yàlla ci kaw la nekk bokkul ci pas-pas wéeru ñu naan yàllaa ngi fépp yàlla nekkul fépp loolu ci pas-pas wéeru yi la bokk ñu la ana la yàlla nga ne yàllaa ngi fépp huwa fi kulli makaan la dëgg la bu fekkee loolu loo ci jublu bi ilmihi wa iradatihi wa qudratihi loolu dëgg la sax yi pas gëm ne yàlla kattanam ak mën-mënam ak ay pexeem ak lépp mu ngi fépp loolu moom saa yi dëgg la waaye bu dee jëmmam yàlla moo ngi arsh moo tax diggante doomu aadama ak yàlla tabaraka wa taala iblis munu fee dagg dara munu fee doxale dara doomu aadama dafa war a déplacé wu ci suuf yéeg jëm kaw asamaan jëm ci yàlla ruux bi dafa war a yéeg set dem ci yàlla tabaraka wa taala looloo tax iblis munu fi jaar diggante doomu aadama ak yàlla waaye boo bàyyee sa ruux tilim mu lëndëm mu taq iblis jàpp la perte nga parce que benn buntu boobu rek nga mën a rawee parce que yeneen yëpp iblis mu ngi fa toog wax na la ko dinaa toog ci sa yoon bu jub bi dinaa ñëw ci kanam ñëw ci ginnaaw ñëw ndeyjoor ñëw càmmoñ ba pare nag toog boo mu toog ay ay ay ay ay fiir la yor ay fiir la yor ñi jàpp na leen ci jigéen ñi jàpp na leen ci riba ñi jàpp na leen ci musique ñi jàpp na leen ñi jàpp na leen ñi jàpp na leen ñi jàpp na leen am na ñoo xam ne sax danañ jàpp ci football karas la leen def tàpp seen tànk pour timis jotee du ñu dum jàkk dañuy seetaan match mu nga ay mbaal la yor bu ñu yaakaar ne benn la ay yu bëree bëri ba pare ay taalibe la yor ay iblis bu xëyee suba day dajale doom yi mu ne lu ngeen def tey kii ne daaneel naa avion mu ne yaa bon dafa dara xanaa xamoo ñoo ñëpp dañoo sëyi dugg aljanna yow dafa dara yow mu ne kii ki mu ne labal naa bato mu ne la dafa dara ñoo ñëpp dugg nañ aljana mu ne yow loo def mu ne fekk naa ñaar ñuy ànd ma taqale leen mu ne ko allah jege si foo ko jege si mu daal dindi kaala kaala ko ne kii moo liggéey liggéeyu leen dara yéen yéen ñi ngeen yéen rek àjjana lañ jëm kii mu ne fekk naa ñaar ñu doon ànd ma taqale leen mu ne ko kii moo liggéey wala li mën a bëgg mooy taqale ay nit kon gars yi foog ñu bàyyi xel iblis foog ñu bàyyi xel iblis de saa yoo rëccee benn bunt ubbi na beneen bunt saa yoo rëccee bunt soo jullee fajar jàkk mu ngi lay préparer pour doon julli ji tisbaar boo julee tisbaar mu ngi lay xaar takusaan boo julee takusaan mu ngi lay xaar timis boo julee timis mu ngi lay xaar gee du la bàyyi wala azalu agwihim maadaama arwaahum fi ajsadihim du ma deñ di leen bewloo fekk ruu yi mu ngi ci biir yaram yi yàlla ne ko du ma deñ di leen jéggal feek ñoo ngi may jéggalu du ma deñ di leen jéggal feek ñoo ngi may jéggalu ah kon mbir yi leer na nañ nañ ñun ñoo ci des suñu borom subhanahu wa taala ne ko qaala uxruj yàlla ne ko génnal minha ci biir aljanna génnal ci biti mazuman muy lan maqtuan ngay ku ñu mere génnal mazmuman ngay ku ñu ŋàññ madhuuran ngay ku ñu dàq ci yërmande yàlla ñett la ko yàlla jagaleel yàlla génne na ko ne ko mere naa la yàlla génne na ko ne ko ŋàññ naa la yàlla génne na ko dàq naa la ci sama yërmande ko kan moo mun a fexeti mu baax yàlla yemul ci loolu de yàlla mu ne ko lamani tabaaka minhum maa ngi giñ ci sama màggaay yow iblis mi képp ku la topp la am la an na jahannama minkum ajmain danaa la booleeg moom yaa kooku topp la ma boole leen benn chaîne dugal leen ci kàmmu jahannama aaya bi bi ko yàlla di wax terme yi rek sax jar naa tiitlu laman ittabaaka minhum waxoon naa sànq laamul xasam bi fële feddaliku na fii la am la an giñ naa ci sama màggaay man yàlla danaa feesal lan jahannama ñan minkum yéen ñii ak moom ajmain yéen ñëpp ma boole leen ku topp iblis rek jahannama nga jëm sikki nekk ci léegi nag càmbar leen seen dëkk bi ngeen xool nit ñi kan lañ topp ci biir ak ci biti nag góor ak jigéen mag ak ndaw xool leen nit ñi dañoo jàdd ba doyal iblis dafa jàpp jàpp su sunu sëriñ ñu ndaw yi sax yéen nañ koy wax amoon na ko tudd Ibou Sakho nee na iblis moom bu xëyee rek day taxaw fële frontière bi frontière Dakar moom lan la booy dugg Dakar fooy njëkk a yegg nee na jam ñaaji lay taxaw rek daan ne allahu akbar waa Dakar yéen kontaan naa ci yéen dem mu ne mu ne du ma ñëw sax di foofu di waaraate mu ne waa Dakar moom ñëpp iblis da leen a moom day day naaw dem feneen nee na iblis jam ñaajo rek lay taxaw daan ne waa Dakar yéen sama taalibe yi nuy naa leen du yegg si gaay day day yër ne ah day yër ne ah yéen a ngi ca.
waaw arta jërëjëf day yërnu ne yéen a ngi ci waaye na na xum na na jóg gars yi daal di kii rek mu daal di départ ndeysaan moom daal di dem yeneen dëkk yi ndax xam na ne ñii moom allahu akbar démb démb dañ ma yónnee sama whatsapp benn benn benn journaliste bu dem ci benn marché mu ne dafa bàyyi ba heure julli jot xam nga dëkk yi gars yi dañuy jàpp mu ñëw fekk ngay jàpp na asalaamaaleykum looy waaj def nii mu ne damay waaj a julli mu ne farat ay njàpp ñaata la nga ku ne xaaral ma woo di ana iliman iliman bi ñëw mu ne ko faratay njàpp kooku ne ko man du ma tontu ci ay rajo ma tontu ci ay jale jàllal keneen ñi wala waa ji wallahi azim laaj na ay nombre nit mu ngi sama whatsapp moom noonu laaj na ay nit kenn tontuwul te gaa yaa ngi jàpp waa ji pare mu ne man de jaaru jaaxle naa gaa yaa ngi jàpp waaye koo laaj faratay jàpp xamu ko faratay laaj jàpp ak sunnaay jàpp léegi njàpp boobu ban njëriñ la am njàpp bi ngay jàpp yow xamoo dara ci faratay julli bi ngay julli xamoo dara ci faratay maanaam jaamu yàlla bii ngay def yow da ngay def geste rek ngay def allahu akbar ruko sami allahu liman hamida sujjoot asalaamaaleykum suñu la ne julli gi nga julli luy farata xamoo luy sunna faroo lé léegi boobu jaamu yàlla la yow jaamu yàlla yi ñuy def fii yëpp nit ñi dañ koy def rek geste yi rek la ñuy def geste yi kabar ruko sujud néew na ci doomu aadama yi koo naan waaw yow jaamu yàlla bii ngay def moom lan mooy atteem ba mu wax la ko waaw ba mu wax la ko waaw waa ji mu ne farata ñu ne ko lan mooy farata ak sunna ci vidéo bi de luy farata ak sunna mu ne mooy farata mooy lii may def sunna mu ne sunna nag mooy jaamu yàlla yu ndaw yi waaw saa waay tey boo xamul nga ne xaw ma rek boo xamul kay wala xaw ma rek comme ñeneen ñi nuñ ne xamuñu waaye da ngay gis Sénégal ku xamul ba pare di tontu man de jànguma waaye bëgg naa cee wax déedéet amoo droit wax yow wax nga sa bopp ba pare jànguma bul wax waaye fii ñuy jàng lañ soxla yow jàngoo non man jànguma waaye nag bëgg dinaa ci wax. te nga fe waaw te nga fekk ñoo xam ne sa waay ñii dañoo jàng jàng jàng jàng ba am problème yow nga ñëw nga ne da ngay lijjanti loolu fu ñu jëm kon bu ñu nax suñu bopp mbokk yi. lii mooy lenn li nga xam ne moo desoon ci aaya yi nga xam ne moom lañ doon jël keroog mu ñu bañoon guddee ndax di xajal mbokk mi heure incha allah ñu ñaan yàlla tabaraka wa taala mu def ci ñun dégg ak topp ñu bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax a baax ñaar wala ñett danañ ko jëlee tey ci suñu dars bu njëkk mooy nit mbindeef loo jaamu jaamu jaamu jaamu yàlla feek deewoo ba du ko àjjana perte go amagoo sécurité iblis a ngi nii wax nañ ne monde bi yëpp iblis moo dàqoon jaamu yàlla fan la mujje yàlla waxoon na Moussa laa taaman makri hatta tara nafsaka fil janna bul wóolu bul tegale ñaari weer dem jàkka rek bul tegale ñaari weer jàng alxuraan rek commencé dafa na yow du nga àjjana déedéet bul wóolu bul wóolu Aboubacar Saddiq yonent bi ne ko Aboubacar mu ne ko ah mu ne ko anta min ahlil janna wala Aboubacar bokk na ci asara al mubashirina waaye Aboubacar nee na sama tànk ndeyjoor bu duggee càmmoñ bi duggagul wóolooguma wóolooguma de Umar nee na bu ma déggoon kaw asamaan ñëpp woote ñu ne yéen ñëw ñëpp àjjana ngeen jëm ba mu des kenn mu ne man Umar dinaa tiit defe ne ndax du ma kooku te Umar xam ngeen ne day dugg ci mubashirina bil janna la bokk xoola ñoo ñëpp nee nañ leen yéen da ngeen di dugg aljanna wóoluwuñu ñun kan moo ñu ko wax ñun ñi fii ci biir jàkka ji kan kan lañ ci wax diw mu ne ah ñu ne ko da ngay dugg àjjana te ñooñu ka leen ko waxoon as-sadiqul masduq muhammad moo jàkkaarloog ñoom ne la diw mu ne ah mu ne da ngay dugg àjjana yow tey suñ ma ko waxoon su ma ko yonent bi waxoon benn piliyaanu or laa ur rek tëdd sama bunt kër daan ne ku bëgg ma dugal la ñëwal ma raay sa bopp nga jox cinquante mille cinquante mille la rang cinquante mille la par jour fii am na ñu suñ ko doon wax ay nit fii xam ngeen ne ñooñu terminé xoola fii waxuñu ko ñii rek te xoolal lu ñuy def te waxuñu leen ko kon suñ leen ko waxoon xoolal ñee yonent bi moo leen ko wax ñu ne wóoluwuñu te ñooñu yonent bi moo leen ko wax allahu akbar ñu ne wóoluwuñu ñun kenn waxuñu ko ñu am confiance da ngay gis nit dee ñu ne kii dem na aljanna waaw dem na kii tey li mu am kii texe na wala nga dégg maire buy jaal di wax mbaaxu ndaw diw ma ca àjjana mel ne moom daa dem ubbi gis ko ñëwaat am na fan yi ku ne man maa teeru sëriñ bi aljanna maa ko tegal pliant xaw ma ndax gis ngeen ko ci seen workshop yi gis ngeen ko gis nga ko gis ngeen ko mu ne maa ko teeru maa ko tegal pliant bi woo nañ ñëw ñu ziyaare ko ah mu ne maalal basang bi léegi mu def ko ba pare mu ñëwaat toog fii loolu vraiment ay mbir la yoo xam ne loolu dañ ko jële ñaareel bi mooy li ñu war a jële fii mooy amuñu benn bunt bu ñu mën a jaar ci suñu borom ba rëcc loolu ñu jokkoo ak moom rek ci kaw jokkoo fexe suñu ruu di yéeg ndax yeneen bunt yëpp Iblis nee na fa faax toog beneen bi mooy suñu borom subhanahu wa taala wax ne lu néew ci ñun ñoo koy sant kon nañ fexe di sant yàlla ñu bàyyi bokkaale yi nit bu amee xéewal na sant yàlla nit nanu sant suñu borom subhanahu wa taala li ñu yàlla may ci xéewal mbokk yi yàlla rek moo nu ko may keneen mayuñu ko amul kenn kenn kenn kenn kenn kuñ ko may ku dul yàlla loolu tax ñu war a sant yàlla tabaraka wa taala beneen bi gën a rëy mooy yàlla nee na safara jahannama dana fees la am la an na la wax danaa feesal ba mu ne këcc yàlla ne jahannama ndax fees nga mu ne yàlla ndax am nga loo may doole hal min mazid wala yàlla wax loolu yàlla neen danaa remplir jahannama ba mu fees ma ne ko ndax fees nga safara ne yàlla ndax am nga loo may dolli yàlla nee na ma dolli ko ba mu jàll ma dëgg ci sama tànk la hawla wala quwwata illa billah ba jahannama naan yàlla xottun xottun xott tànku yàlla nan la toll su ko tegee fenn dëgg ko ñooñu fuñ jëm lool loolu jar na jaamu yàlla loolu jar na imaginer loolu jar na nit di toog di imaginer yàlla ni mu toll mu ne dinaa feesal safara su ma ko feesalee safara ne ma yàlla dolli ma ma dolli ko ba mu jàll ma teg ci sama tànk dëgg ko loolu war nañ ko bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax a baax a baax loolu kenn ku nekk loolu jar na bàyyi lekk jar na bàyyi naan loolu jar na nekk ci benn néeg loolu ñu naan labbewu ah mooy bàyyi lekk bàyyi naan bàyyi jigéen bàyyi lépp nekk ci néeg ba dee wallahi jar na ko xool leen jahannama nu mu toll yàlla dugal fi ay nit te mbindee fi la fa yàlla dugal parce que la mu ko wax dafa leer naññ la am la anna jahannama ah la man ittabaaka minhum la am la anna jahannama minkum damir bi yaudu ila man ci nit ñi minkum yéen ñii ku ko ci topp danaa la dugal ba pare yamu ci mu ne ajmain mu nekk tawkiit yéen ñëpp ñi ko topp danaa leen dugal léegi ñun ñu yaakaar ne fii bu ñu foowee ba dee rek am na ay gars yoo xam dañuy ñëw rek daa ne yàlla foo nekk jox ñu caabi ji ñu ubbi suñu gars yi ñëw nañ waa Sénégal ñëw nañ ñun ñu bëri loolu moo tax duñ jaamu yàlla ko wax ñu ne non non àjjana amul problème waaw am na benn sëriñ bu ne gars yi dañ ko ne waa sëriñ bi yow gars yi fii moom bu ñu ñëwee mbirum mbirum mbirum àdduna rek la ñuy wax kenn du àllaaxira mu ne àllaaxira lijjanti nañ ko foofu diw mu ngi fa lijjanti na ko ba pare moo tax mbirum àdduna rek àllaaxira réglé nañ ko ah kon yéen da ngeen am àllaaxira ñu ko réglé dama leen di laaj yéen waa Sénégal da ngeen am àllaaxira ñu ko réglé du ngeen ma tontu yéen waa Sénégal da ngeen am àllaaxira ñu ko réglé ba pare te ñoo jaamu yàlla ku nekk nga réglé sa bopp moo gën a wóor de dégg naa séeréer bi bu mu demee ci sëriñ bi sëriñ mu ne ko dinaa la dugal aljana mu mu toog bay jóg mu ne ko sëriñ bi fan la fan la ñuy dem mu ne ko aljana mu ne ko waa léegi ñaari laaj laa am mu ne ko walla mu ne ko boo ma njëkkee dee walla ma njëkk laa dee yow soo ma njëkkee dee fan laa lay fekk su ma la njëkkee dee foo may fekk sëriñ bi ne tekk ba caag mu ne ko léegi xam nga sax boobu dafa sot teeg maa jox caabi ji su ma la gisul moom ma ñëw rek dugg boobu moo gën a wóor teeg maa jox caabi ji ma yóbbaale su ma la njëkkee dugg soo ma njëkkee bu ma ñëwee dugg nga xam ne du ma nekk di la xaar rek di la wër boobu mooy bu wóor de nga fexe nga yor caabi ji waaw caabi ji nag noo koy yoree mooy nga jaamu yàlla nga bañ a nax sa bopp olof yi nee nañ ku noppi nax sa bopp sa aajo fajo soo tëddee sa kawlal jaaxaan di saw te fekk yaa ngi ci kawlal bi koy nax aywa dars baa ngoog noo ngi ñaan yàlla mu defal ñu tawfiix mu jéggal ñu njuum tey incha allah ñu bàyyi sunu mbokk bi nee na ma bii passé dars bi dafa gudd ba bi muy ñibbi dafa guddee waaye xam naa ne incha allah loolu war nañ cee waxtaan euh, parce que aussi tafsir bi mënuñu ko baakre di ko tafar tafar ñe mënul nekk xam naa ne incha allah dañ koy xoolal jour boo xamante ne ku mu intéressé nga ñëw jël si dars fiq bu paree incha allah xam naa ne il faut mu waxtaan ak moom ci loolu salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh